laay ça va. ça va alhamdulilah. dégg nga. da ngay waaj a dem. waaw dama waaj a dem na yow. waaw finalu na. waaw may ma tuuti. kaay. Seyna nuyu naa la. Seyna la. su loo ne. man bëre rek. bëre rek laa fi andi. daa da ngaa bëgg a jël si nit. waaw dama bëgg a ñëw jël affaire dem quoi. loolu li mu liggéey moo tax quoi liggéey moo metti. xam nga entraînement toujours amoo beneen liggéey bu dul làmb. kon boo duggee si làmb da ngay doon suñu fayda quoi loolu moo ñu fi andi waaw. dama cee gis Zeyar dafa posté amu ci dara caax. non lu may xaar lan laa xaar. bu may bëral samay mboq samay mboq lañ sax mën naa wax. kon man maa xaar quoi noonu la demee nag. ah waaw maa na mbokk yi baa ngi noonu dox ci diggante Ablaye Ndong ndeysaan ak jaata ak Géant Bargny Ablaye Ndong daw na Géant jëli na Géant mooy njool mi ndeysaan mbokk yi Géant bu Bargny ak Ablaye final baa ngi noonu fii ndeysaan da koy biij doole doxul jàmm doole doxul jàmm dafa am doole Géant Géant dafa am doole mu ngi koy biij arbitre arbitre arbitre waaw ndeysaan arbitre nag du toog takk na daan na daan na ko Géant daan na ko